sëñ bi. waaw. xanaa koor gi dalaa jàpp tey. waaw tey nag moom loof naa lool. xam naa nag li ma xëddul moo ko waral. Eh. waaw. Ah, xanaa amoo soxna. ah kañ. am naa soxna su baax sax. soxna wax dëgg yàlla am naa soxna moom it xam naa dafa dafa dëddante rek. Ah. waaw. yow da sa jabar ji ba yóbbu nga tuuri ko. déet waay. waaw coof fu mel na yow. man su ma la amoon sama kër gee xam nga nu may def fanaane xoolal bërsët pour fas yéene laa yee nga xëdd wala mois de ma gi yëpp ma di ko xoolee pour yee la da coofe di coofu mel na yow. jëral na la ko waaw. dama xam nga lu ñuy def. Hmm. dama lay ñaanal nga am coof boo tiim di ko mën a yee xëdd dégg nga na la ko yàlla may. amiin sëñ bi am jërëjëf soxna si. may ma noonu ci kanam dina baax noonu rek baax na. oh massa sonn nga lool waaye massa waaw kilifa gi fan nga bëgg a dem ñun kay danoo bëggoon dem fële eh, eh, ca mbay hôpital bii rek ah. waaw bi ci yoof noonu waaw sans doom bàjjen la bu demee mu jëm ci pexe ba xam waaw moo ne de foofu ma leen jëlee waaw hôpital su baax a nga fa hôpital la waaye ban fa duggee it lan nu waxoon rek lan wax ne na banque de sang yi fi ne woon daal jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk kii daal toll ci weeram ba pare daa animé hmm, te moom deret la soxla wëp mu ngoog te hôpital buñ ci fëgg ñu naa mun deret waaw léegi nag lu ciy pexe depuis ca fajar ba tey ñoo ngi dox hmm. xombal la ñu jóge hmm. jaar nañu Cees jaar nañu Tëngéej jaar nañu Pikine jaar nañu fu ne waaw baax na kon ñu dem waaw waaye ku baax waaw waaye waxagoo ma ba tey looloo yóbbagul dante bu ñu àggee loo joxe baax na déet ëpp naa def baax na waxal rek yàlla baax na est-ce de bu ñëpp meloon ni yow kon dëkk bi dana naan yow ñëwal nag agsi nan ba noppi agsi nañ ba noppi jërëjëf ah, masa waay ah masa soxna masa baax na sëñ bi toppatoo ko waaw dinaa ko toppatoo boo baax waaw eh, na baax na baax na jéggal naa la ko toppatool soxna si rek yàlla baax na soxna si muñal rek ku baax dama la bëggoon a laaj yow ban groupe sàngee nga bokk man nag kilifa gi mosuma maye deret xaw ma ban groupe laa bokk waaye jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf kontaan naa ci yow bu baax merci yal na la yàlla kontaan nañ ci yow bu bu baax jërëjëf jërëjëf ci yàlla ah, kilifa gi xaar xaar ma xaar ma ah sa waay luy ma waaw kaay ndànk rek est ni waaw nañu dugg ci biir waaw ñu laaj kan mooy def groupe sanguin yi waaw bu sama bosag bosam àndee ah. ñu jox ko délet ji bu àndulit ñu jox ko keneen rek yaa wax lii waaw kon nan dem bon nan dem ah jërëjëf waay ko baax na yàlla baax na